شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نواري نيو وقتاني في دار الشيخ الخديم بيغا خامني لنشاي تاي واخ من نان تاي جوخي مثال في داخ دار لا جو سرين بي داف كو دون صلاه وسلام مو دون لو خامني ايتام مبولم يوننتي اك ني في ما سون نييو نييب لولو لين في اندي وون موي جانغلي موي دوخ با اكسي محمد صلى الله عليه وسلم كتا اند تاك صحابه الكرام غناوم التابعين وتابعي التابعين بامو يكسي تي شيخنا الخديم رضي الله عنه مو ني تياس لغي بوبي تي نجيل بين غا مو واخني موم دا فا نييو رك غير جانغلم يرنت بسال الله عليه وسلم بالمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمده بمجوك يلنك لدادي ليرا المملكة تخجوك تلول رك موي جانغ تك تانكم فكو يرنت بسال الله عليه وسلم تقول أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفه شغلي وحاجاتي كون سيرين بي موم بيرم موي بيرم يرنت بسال الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بخنا نك دنج ما يوني yónni غير ما ma انما بعثت معلما واي انديل ني القران الكريم nga xamne ay bi ci ñëk wàcc man nañu wax ne moy digle jàng wala moy jàngale iqra iqra bismi rabbik allasi khalaq khalaq al insaan min alaq iqra wa rabbukal akram allasi allama bil qalam xam-xam dal di ñëw melne itam borom bi subhanahu wa taala sax la jitu muy bind sunu mam adam alayhi salam dafa waxante ak malaayika yi ne leen man dama bëgg wut ku ma wutu ci kaw suuf ñu ne ko xana bu boba ñun lay doon mu ne len nak man ma xam lo xam ma ko xam wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun waye lum ci tek wa allama adama al asmaa kullaha kon xam-xam moom mooy li nga xam ne mënta ñàkk ci doomu aadama mook dooma aadama ànd wala moo ko jiitu wala moom la njëkk am sëriñ bi bi mu ñëwee ni ma ko waxee léegi léppam di yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëwoon di jàngale moom sëriñ bi it bi mu yëkkatee wooteem bu tedd bu màgg bi ñëpp ñëw wuy si ko waaye nag mën nañ cee tàmbalee ci borom dëkk bi ak i magam waaye mën nañ cee tàmbalee ci ñi nga xam ne itam fu nekk lañ bàyyeekoon ñëw fekk si woon Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye ña ca tolloon ci jàng ñëpp wala ñoom ñëpp sax dafa leen doon jàngal ndax ñi tolloon ci jàng bind ak ñi toll ci jàng ci a tarbiyatu bil xudwa mu di leen way loolu lépp am njàng la te mooy sax mooy jàng mi nga xam ne mooy moom la ñu tuddee pratique ci jamonoy léegi ji mooy mi gën a dëgër kenn ku ci nekk ci itam ba mu jëflanteeg yow ba def ci yow li mu def ci yow dangaa ngaa delluwaat fi barab wala nga dem fi barab di fa yaatal loola kon loolu mooy liggéey bi yoon wi ñi nga xam ne ñoo jotoon a nekk toogee jataayam ci loolu lañ nekkoon ñi nga xam ne itam ci njabootam lañu bokk te jotuñu woon tooge jataay bi ci loolu lañ nekkoon muy dox nag di dox ba yegsi ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu wax ne kat moom amul benn yitte bu weesu fas yéenee yëkkati liggéey boobee nga xam ne moom la fi fekkoon waaye nag def ko muy yitteem jenn yitteem yoo xam ne moom la am ñëpp nag ànd ko ak moom mu nekkoon ni mu bëgg mooy daara joo xam ne day tàmbalee ci kii dal baasiin ba ca njobaxtan la nu tënk ko nag yaatal ko nga xam ne mën nañ koo tuddee léegi daanaka manhaj tarbawi islaami muridi walla modèle éducatif wala système éducatif bu cheikhuna alxadim radiallahu anhu te bi nga xam ne mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ma ko waxee woon ñu tënk ko nag ci ay pàcc yoo xam ne jàpp nañ ne lépp li moom li ñu soxla fii mu nekk nii cim njàng fi jamono tollu bàyyi nañ ko ci xel wax nañ ko léegi tàmbalee ci alxuraanul karim bi nga xam ne moom mooy mbirum sëriñ bi te mooy ndàmbool xam-xam yi mooy cosaanul xam-xam yëpp te xam-xam yëpp a ngi ci biir sëriñ bi itam wax ne moom mooy léppam rawatina ci weer wi ñu tàdd ñu tàllu nga xam ne bu saan jot ba fi mu nekk nii boo duggee ci mboolem dëkk yi tàmbalee ci Daaru Muxti gii ñu nekk waaye boo demee Touba boo demee ci mboolem dëkk yi nga xam ne njabootu sëriñ baa fi nekk ba ca Ndakaaru nañ fay dundale alquran ñun ñëpp teg nañ ci suñ bët te moo waxoon ne maa ko moom malaktuhu hadiyatan wa thamana wali yu di wali wali wa thamanan wali yu di mu nafaqa malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa thamanan wali yu di mu nafaqa gépp anam goo xam ne nit dana ca moome mbir mu dagan ko moome naa ne alquran kon loolu firnde la joo xam ne doonatul lu ñuy lu ñuy lu ñuy misaal ñu def ko daara joo xam ne nag gone gi daf cay tàmbalee dal baasin ba ca njobaxtan la ñu def ko ci anam goo xam ne njàng mu gaaw lay doon waaye da koy mokkal ci diirub juróomi at diir boobu itam dana ci mokkal alxuraan beq ci bind kaamil waaye itam dana ci jàngale xam-xam yi mënta ñàkk ci xam-xam yi diine loolu sëriñ Moustapha Diop Ndar mi ngi fi moo topp ci sëriñ Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo jiite daara jooju xataay bi ak naafila ga muy jiite ca Touba moo tax waaye kon day ànd ak Serigne Moustapha ak ñu ñëw ci jotaay bi fii mu nekk nii tàmbali na ba lu jege juróom-ñetti téeméeri gone ña nga fa ñoo xam ne fa lañ féete seen lépp itam foofa lañ leen koy defale waaye Serigne bi bëgg ñu yar leen nag na nga xam ne noonu la Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu doon yare te noonu nga xam ne noonu la borom dëkk bii di borom Daaru Muxti di yare moom la borom saam di yare moom la borom gaawaan ak mboolem ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ak cheikh yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi kon yar boobee rek lañ bëgg ñu màggee ko fa bu ñu ay bu ëllëg ak sibir ñu doon ñi nga xam ne ñoo koy tasaarewaat di ko yaatal na nga xam ne noonu la maam yi defoon am na itam majalis daare alquranul daare njàngum xam moom itam moom la ñu fekk fii ci daarul Muxti njàng moomee nag doon moo xam ne dañ koo nos lool moom itam yokk ci nag loo xam ne dañ ko gën a dëppaleeg jamono mooy ay mawadd yoo xam ne xëy na baaxee su ko woon a jàng ci majalis des ko fay jàng waaye dañ fay joxe itam ay ijaaza ay diplôme ndax bu njëkk baaxooguñu woon lool di joxe ay ijaaza ci majalis waaye xale bi day def imtixaan di def ixtibaar bu waree am lijaasa ñu jox ko ko lijaasa boo xam tam état wu Sénégal reconnaître na ko loolu itam njàng ma tàmbali na macha allah mbooloo mu bare ndax dafa nekk nekkal fa daaru moot yi kon ma nga biir Touba mi ngi biir daaru waaye jàmbaar la ca liggéey ba ñu koy seede jàmbaar loolu wane ci pësteef bu mat sëkk ak xarañte goo xam ne ràññi ko na ca lool loolu ñu ngi koy seede ci dëkk bi di ko ci sant di ko ci gërëm mu doon moo xam ne moom itam ni ma ko waxee mën naa dem ba nit ki am niveau boo xam ne wala marxala boo xam ne dafay toll ak lisans waaye nag aalim rabbaani lañu wax boo xam ne moom dafay jàng diine da koy xam bu wér da koy xereñe waaye dañ koy tàggat nag ba xam-xam boobu day lagg ci ay cëram ba fu njàngalem l'islam bi ngi ci mom xamne ki ci daari cheikhul khadim ji la génne waye ki lim jàngoon yëmut ci jàng ko waye da koy dund ndax cheikhul khadim radiyallahu anhu waxon na ne inna alladi lam yahshar rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun kon lolou dañu bëgg gone gi magale xam xam-xamu diine waye dund ko dag tag ci mom ba nga xamne bu ñëk suufi yi ba nga xamne mo xam mom la serigne bi di wax ne wal hasil as-sufi alimun amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin loolu lañ bëgg ñuy génne noonu yi ci daara jooji naka noonu itam am na njàng mu kawe mi nga xam ne ñi nga xam ne am nañ baag ba noppi bëgg a def njàng mu kawe nga xam ne moom lañu daan jàng bitim réew defe naa loolu sëriñ Abdou Samad sama kilifa gi mën na cee joxe misaal bu njëkk jafe woon na lool jafe na lool muy jàmbaar moom itam nag ma xamoon ko ci Égypte macha allah doon borom xam-xam bu doon jàng jàng yu bari xam naa xëy na loolu xamu leen ko ci moom. ku lee loxal arabiya la nekkoon waaye nag yu baree baree bari dajale woon na ko fa xam naa yooyu moom jàpp ma ne wane na ko fii waaye booba jafe na léegi nag gone yi fii lañuy ñuy jànge macha allah teel a am bag lool ñuy sant ku mel ne sëñ Mourtada Touré ci liggéey bu rafet bi mu ci def ak ñi mel ne moom te fii ci Touba nag jàng fi njàngin moo xam ne njàngum lislaam lay doon lépp lu ñuy jàng ci université yi gën a kawe ci biti dañ ko fiy jàng waaye dañ koy dëppale nag ak njàngalem Serigne Touba te loolu mooy dëppale ko Sénégal gone gi dañ koy jangal taarixu Sénégal dañ koy jangal al adabul arabi Sénégal yi dañ koy jangal njambar ak sunu mag ñi jangal ko tasawuf jangal ko itam mu xamne kat rew mi mbax da fay fekk bax du caagee nag lu bax lu ne rek dañ ko wara a ci ca indi ko fi waye ba yàlla séddale mbaax fàttewunu danoo beral loxo sax lañ wax te manu ndax bi nu joxe Cheikhul Khadim radiyallahu anhu loolu itam demb rek ñi fa jotta bindu wa ministère wa bureau de bourse ñëwoon nañ fa di leen jox ay bourse mané len li lii wute naag bu ñëk li amoon de kon légui li ngeen wara def nak moy ngeen soppi ko njàmbaar di jàng kulliyat dirasatil islam boobu am amna ñaari qism qism al-lugha al-arabiyya wa adabiha ak qism ad dirasatil islamiyya docteur Abdoul Ahad Lo mi ngi fi ànd ak ñun ci jotaay bi bu ko maté mom itam dana jël kàddu ak docteur Abdoul Ahad Sané moom it waroon naa ñëw waaye xataay bi ñom ño ngànk liggéey bopp bi waaye bu ci ne rek nima ko waxe ay sommité ñoko yor lu ci ne ñako gëna man ñoko ko waajal waaye ñoo yor itam liggéey bi am na itam xismu boo xam ne dañ ko jagleel école yi nekk Touba te bari lool te ku ne xam na ni lislaam dafa nosu rawatina yoonu murit lépp dañ ko organiser loolu itam dafa am commission bu am solo boo xam ne ñoo ci doon liggéey ba fi mu nekk nii taxaw na ñu digg tuddee ko ñun sax école de Touba lañ ko tudde département boo xam ne école Touba lay toppatoo mboolem école yi fa nekk doon jàng ñu xool nuñ ko nosewaat bu ci ne ñu xool la ca manqué woon ñu def ko ca bu fekkee am na ca lu ca nekkoon lu dëppawut ak dëkk ba ñu génn ko ci ndax dëkk ba dëkkub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu la te lim lépp lu baax sëriñ bi dajale na ko foofa waaye lépp lu dib safaan wërta am foofu kon dañ ko bëgg a nos ndax bari na fa école yoo xam ne ñi fay jànge buñ ñu mën a am ay diplôme ñi leen di jàngal waruñoo jàngale ndax waajaluñ leen ngir loolu barab yee ñi jànge xëy na waree su faa jànge te état reconnaître ko nga xam ne gone gi dafay nekk rek ab diir bu bu mu yàgg mu dem feneen loola yàqu dund lay doon loolu nag dañ ko nos def ko ci idaara bu dëgër boo xam ne dañ ko ànd ak inspection départementale bu Mbàkke ci ndigalul ministre de l' éducation nationale nga xam ne boobu itam bu noppee dañ leen di tënkal waaye dañoo waajal njàngum diine ak makaarimal axlaaq bi nga xam ne moo tax lislaam jóg waajal ko ni ma ni mu xam ne ni lañ ko war a waajale danañ leen ko jox ñoom ñëpp ñu tënku ci du tee dana jàng programme éducation nationale ba examen jotee ñu mën a def examen mën ay diplôme waaye dañ am luñ ca yokk loo xam ne dañ koy ëppalee ñi nga xam ne jàngawuñ foofa te mooy njàngalem Serigne Touba mooy njàngalem lislaam naka noonu am na fa euh, manis na ko tudde institut supérieur waaye UFR santé boo xam ne moom itam tàmbali na ñu di fa jàngale lu wàll lu aju ci wàllu euh, science infirmière et obstétricale gis nañ ne loolu lu ñu soxla la ci réew mi waaye rawatina Touba ñu waajal fa ñoo xam ne it ñi am bac danañ fa mën a dugg jàng fa bu buñ noppee nekk ay sage-femme ay infirmière ay infirmier ay ay ay ay technicien supérieur de santé ak itam yeneen yeneen formation yu bari yoo xam ne war naa ñëw waaye ñaari formation agrégé moo ko jiite docteur Makhouredia Dia moom itam di ki njëkk am doctorat ci science infirmière mooy coordonnateur technique ba nga xam ne ni ñu ko waxee daal njàng mi lu ci ne li ca gën lañ tànn indi ko foofu ñu di ko fa jànge ñoom itam tàmbali nañ ba ña ngay ña ngay ña ngay jàng ci kanam incha allah dañ noonu lañ koy wéyale at mu jot rek danañ dañuy yokkaat dara waaye ren daal ñeent yooyu lañ tàmbalee muy daare alxuraan ji ak majalis bi ak euh, kulliya dirasatil islamiya bi institut euh, muy euh, faculté bi nga xam ne mooy jàngale wàllu diine UFR bi jàngale wàllu diine science islamique ak itam institut supérieur wala UFR bi nga xam ne mooy jàngale wàllu wér-gu-yaram ñeent yi bu ci nekk tàmbali na fi mu nekk ni alhamdulilahi rabbil alamina macha allah ma ngay ma ngay ma ngay dox bu baax a baax bu déwénee danañ yokkaat lu lu toll noonu amna itam ay maahid wala ay institut yu nek ci bir bokku na ci bo xamne da fay jàngale al lughat wa tarjama ndax gis nañ ne liggéeyub serigne bi ni mu yaato te adina bépp war ci jot te ñep bokko lak war ta don teunk bi koy teunk be tax na wépp lak wo xamne jàpp nañ ne buñ ko ca toxalee ñooñu danañ ko mëna jariño jariñoo danañ ko ci toxal inshallah ndax ñep ko wara jariño ñep ko jot ndax mo don sallallahu alayhi wasallam sallam te sallallahu alayhi wasallam moy rasulul alamin moy rasulul bashariyah وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لول ما تكون لجيب سرين بي فيبل ورا يبغى تنجري نقول نبغيشي أم نفعي تام فوق أم نك بو أم صلى الله مم تامبلنا أم نيو كوي لاج تبغيشي نيو تامبله غد موي مع التصوف والدراسة المريدية دفع إتل نيو لول لول ندني رواتنا نك أكسيدان أغنيغا خامنة دنيو بغا خاملان موي صوفيزم بو بو بو أم صلى الله بو خاملة نيو كوي واجل professeur Saleh Salaam moo koy coordonné war koo ànd ak mbooloo mu bari moo xam ne moom itam bu am solo lay doon ci liggéey bi incha allah fekk ca kanam dana tàmbali. am na itam yeneen bu ma duggee ci UFR e yi moom daanaka lépp lu ñu jàng rek lépp lu ñu jàng rek ci xam-xam bu am njariñ danañ ko fa jàng ndax sëriñ bi ba ñuy soññ ci jàng dafa ñoo digle doon ñu jàng ci ñu tàmbalee ci xam-xamu aqida mooy tawxiid teg ca euh, euh, fiq te mooy tax ñu xam nu ñuy toppee borom bi bële mooy tax ñu xam lu ñuy gëmee borom bi subhaanahu wa taala nu ñuy sellale sunu ngëm waaye bii mooy tax ñu xam nu ñuy jaamoo borom bi subhaanahu wa taala beneen bi mooy tax ñu xam nu ñuy rafetale jaamu ko mu wax ñu ne nañ def yooyu waaye bu ca noppee nag bépp xam-xam bu am njëriñ kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi'i fi loolu moo tax bépp xam-xam bu am njëriñ des na ko fa jànge ci anam goo xam ne itam mooy gëgën a kawe ndax waxtu wone dañ nan ñu ni standard international wala ni yo standard yi nga xamne ne bi yep ci lañ teunku fofu lañu tambalé ñun wut luñ ci yok waye xalaatuñ yées ko euh, ñi ngi teunku itam bu dé ci njàng mu kawé mi ci kames ndax anaq mi ngi fi Sénégal teunk mbolam njàng mu université fi ci Sénégal waye kames bi nga xamne mo bolé Afrique ak Madagascar mom itam nga xamne université yu mag yep fofu lañ teunku waye di système LMD LMD bi nga xam daanaka daanaka àddina bi yëpp ci la ñuy tënku fi mu nekk nii nga xam ne moom ay semestre lay doon ak ay ak ak ak ay ak ay ay ay euh, nga xam ne nit ki daal moom mën naa jàng euh, ba noppi te fu mu dem dana fa mën a jëfandikoo li nga xam ne moom lay moom lay moom lay jàng moom lay jàng dana ko mën a jëfandikoo foofu njàngum àddina bi yëpp daanaka foofu la tënku moom itam professeur lamin Guèye mi ngeen xam moom moo doon coordonnateur wu enseignement supérieur bi yëpp di koo xam ne ñëpp xam nañ xam-xamam ñu ci toll waaye professeur Mor Faye nag fi mu nekk nii mooy coordonnateur général bi nga xam ne moo nekk ci université bi moom itam nekk professeur buy jàngalee fële ci université Ndar noonu lañ ko defee daal lu ci nekk dañoo xool ña nga xam ne ñoo ko am xarañ ca mu doon seenug wàll ñu dénk leen ko loolu itam xamee nañ ci ne njabootu sëriñ bi mboolem xam-xam bu am njëriñ mboolem xam-xam yi gën a kawe mboolem di nga xam ne moom la ñuy wax domaine yi gën a pointu mbooloo mu du jeex mu doon jabatu sëriñ bi am nañ ci ci université boo xalaat nag ci àddina bi ñooñu kenn ñu ci bari bokk man dama wax ne jokkoon nañoo ak ñoom kenn ku nekk bindu wax pas-pasam bokk ci liggéey bi ndax ñoo àndoon waajtaay wi waaye ñoom itam ña nga toog di néggandiku képp ku nekk kenn ku ci nekk waxtu wuñ la soxla ak fuñ la soxlaa nga daal di ñëw jàpp foofa. moo tax bokk na ci li ñuy wax itam télé enseignement wala enseignement à distance lu ñuy amal solo la ci liggéey bi nga xam ne nit ki mën naa nekk fu sori. waaye di jàngale fii ci université Cheikh Ahmadul Khadim bi waaye nit kii it mën naa nekk fu mu ko soob ci àdduna wala ci réew mi di jànge foofa ci université bi ndax defe naa ne li fi xew bu yàggut tawat ji ñuy ñaan mu dem te bañati fee dikk ñëpp jànge nañ ci waaye ñun bokk na ci loolu ñu ci jànge mooy xam ne kat kon jàng moom wareesatu ko tënk ci espace wala ci temps daanaka waxtu wu nekk nit ki mën na di jàng xam-xam bu am njëriñ mu doon liggéey boo xam ne nag ni nga ko liggéeyee dafa yéeme lii damaa wax rek ci wàllu ni mu tëddee ak programme pédagogique bi xëy na cig tënk ndax waxtu wi ni mu xate waaye pas-pas bi ko liggéey ku ne xam ne ne ku baax ki Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ba mu déglee ñu tabax jumaay Touba jumaay njaareem sax mën nañ caa tàmbalee waaye jumaay Touba ba mu diglee wax ne ku ko mën na nga joxe nit ak juróom-ñett booba murid yi néew nañ lool ci lim booba itam am koom bareegut nii mu bare waaye teewut booba jëfe woon nañ ndigal la mu waxoon ca ne nag dama leen a bëgg a jàngal ndax dama bëgg ëllëg lu ngeen soxla ngeen sukkandiku ci seen bopp ndax kat dañuy wax ne ku la mënal sañal la yàlla na doon ku la mën ku la war a sañal kon fu ngeen lu ngeen soxlaati ngeen tàmbaleel ko seen bopp fu seen kàttan yem ngeen yem fa te dem fàggu jiwaat lu lem te xam ne say jaalullahu baada usri yusra loolee nag mooy wéy ba nëgëni loolu moo defar jumaay Tuubaa moo defar mm, daaray kaamil moo defar masaalikul jinaan moo defar ma hôpital matlabul fawzayni nit ñi dañ koy fàtte te murid yoo ko def ci anam gu doy waar jumaay masaalikul jinaan ji ci ndakaaru nga xam ne moom itam ku ne xam na ne fi mu nekk nii bokk na ci kéemaan yi sëriñ bi waaye barab bii ñu toog jumaay borom daara ju mag ji looloo ko defar jumaay tu ci wàllu xam-xam ñoo doon waajal lii ma wax di ko def nag lépp nag xet ba kenn mësu ceen fayu ko benn koppar bi gën a néew sëriñ bi ci boppam daf di ko joxe barkeelu waaye dañ cay barkeelu joxewaat la ca des àddiya ñëpp dañoo jaayante te am na ci ñoo xam ne ku leen bëggoon a yëkkati dana diis dana jafe boo ko leen doon fay te daje leen doon leen benn yoon moom yombul waaye gis ngeen diggante bi dañuy wax naan ci juróom fukke weer lañ ko def waaye boo xoolee bi liggéey bi tàmbalee ak fi mu nekk nii yées na loolu noona itam la gën a yéemoo ci jamono juñ ko doon liggéey muy ñaari at yi jàll wala ñett ñaari at ak nangam yi jàll booba jamono ni mettee ak ni mu jafee ci la nit ñi nag bu buur rek kenn ku nekk la man joxe kem kàttanam waaye ñu teg ko nag ci yoon mu dëppook ay norme ni ma ko waxee lu ci ne ñu tëral ko soog koo def barki démb am na ku ma wax ne ma li ko jaaxal ci liggéey bi mooy gis na ne bañ tàmbalee tabax ba tey mësut a gis ñu ñu toj maanaam ñu def dara dindiwaat ko wala ñu ne lii daal dañ koy soppi dañ koy defaat leneen la ko waral mooy dañ ko waajal tëral ko ci xam-xam ndax sëriñ Tuubaa léppam xam-xam la yoonu murit yoonu xam-xam la bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruusi mooy xam-xam bi dafay war a jiitu bu ko defee leneen lu nekk mën caa toog sëñ bi waxee alquranul karim alkitaab mooy mooy ndam bi xam-xam yi ni ma ko waxee maa faratna fil kitaab min shay borom bi subhaanahu wa taala daf na ko indil ñu mën cee barkeelu mën cee jaamu yàlla di ci ñaan di ci faj sa di ci saafarawu waaye nag man koo tadabbur man koo setantal man koo jàng muy bataaxel ñu war cee defar nag àdduna defar ci àdduna bépp defar ci àllaaxira loolu moo tax alali sëriñ bi lu nekk luñ koy waajal dañ ko war a teg ci xam-xam mu wane nosu goo xam ne am na ci yoon wi waaye wane pas-pas boo xam ne itam waxtu wane day gën a dëgër ndax ku ne xam na ne ba Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo rëddoon barab bee Cheikh Mouhamadul xaa di yeggale laajeeb milliard boobu tur wi kenn mës ko a dégg ñu dox ba tey 2023 Cheikh Mouhamadul xaa wax ne damay defal sëriñ bi liggéeyub 37 milliards ci lu matut ay at ñu naan fii mu nekk ni àggagul de waaye day manees naa tàmbali ndax fii may waxee ak yéen juróom benn fanweeri bâtiment ak juróom benn ña nga fa yoo xam ne bari na ci yu noppi bañ livré ko yi ci des itam yenn yi gros œuvre yëpp noppi na ñi ngi ci second œuvre yi ak itam daanaka finition yi sew sewaan yi loola ni ma ko waxee woon ci li ma doon wax am na ca centre de formation professionnelle ci li ma doon lim léegi ci institut yi boo xam ne moom itam mépp métier mënu soxla dañ ko fay jàngale métier yi ñu yi ñu soxla nii lu mel ne ni ñu war a defaree lii rek dañ ko fay jàngale waaye làmp bi ñuy leeral courant bi ki ko bëgg jàng muy métier informatique moom dama ko jëlele nga xam ne lépp ci lay ci lay ci lay dox wàllu climatisation ak froid lu la gën a jege rek doonul loo xam ne dañ koy théorie wala ñu koy gëstu ji li gën a jege lañ fay jàng nga xam ne ki nga xam ne génne na ci daara ji ne man damaa bëgg a daal di euh, góorgóorlu ji am lu ma mën a jàpp teral ci waajur yi tedd ci te ñaq jariñu ko ne xam ne ne ma mabaadi bu am solo la ci murit kooka moom bu ñëwee mooy xool li nga xam ne yàlla mawhibaam wala muyulam foofu la gën a jëm Quran la bëgg a jàngi mën na fa daal di dugg ñu daal di koy jàngal ci anam nag bu professionnel nga xam ne du doon mën na faa def ñaari at am fu mu toll lu mën a amee war wërsëgam mën na faa def ñetti at mën na faa dugg ba nekk ingénieur ba nekk ingénieur de conception yëpp am na fa même kii def wàllu métallique wala muy def wàllu menuiserie ne man daal maa ngi ci sama mu nga ca barabu waajuram moom di fa liggéey waaye bëgg naa yokk xam-xamam ndax gis na ne kat banque bi wala lii ni mu koy defee baax na waaye finition bi mën na ko gën a raffiné mën na ko gën a defaraat ba mu gën a kii mu ne man ci ayu bis gi xëy na ajjuma laay dallu ajjuma googu danaa ci jël benn waxtu ñëw fii ci barab bi ñu ñu ñu yokkalaat ma sama xam-xam defal ma renforcement renforcer ma sama capacité nga xam ne ëllëg li ma doon def danaa ko gën a xarañe te sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne kat inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu jullit bi lu muy def daf ko war a man daf ko war a xarañe daf ko war a jekku daf ko war a man bu baax a baax ba nga xam ne ëllëg liggéey ba sikk du ca am kon noonu la liggéey bi yaatoo am na fa fu ñu jàngalee wàllu mbay ni ma ko xamee ni ma ko waxee sànq ku tudd mbay tudd yoonu morit ku ñëw fii ci daarul yi gis borom daaru nga xam ne wax nañ ne lu mat ñeent fukki kilomètre yoo xam ne moo ko wër daaru moo ko moo moo njaboot gi ñu nekk fa di fa dundal suuf di fa dundal suuf te loolu dafa bokk ci li tax subhaanahu wa wala mission yi ñu jox moy wuutu yàlla ci kaw suuf waye jaamu yàlla waye dundal suuf wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anshaakum ya wastaamarakum ayat alquran yu bari bari yo xam alquran wax na ko bi ben la ci moy dundal suuf njambar gogo wax contribution bi nga xamne serigne bi ak njabotam def nañ ko ci économie Sénégal wala économie aduna bi daru moti lay joxe misal lu ëpp rayon rayon boo xam ne ëpp na ñeent fukki kilomètre ñu nekk fa di fa bay lañ fay bay ci réew mi lay dellu li réew mi lay dellu te ku ne xam na ne développement mënta am te mbay amul kon defe naa ne bu ñu amee foofa UFR buy jàngale wàllu mbay di fa tàggat ay ndaw bu noppee ñoom duñ dem di yokk chômage bi duñ dem di sonal kenn dañuy daal di dugg ci àll bii ñu dimbale leen nag jox leen ay jumtukaay bu boobaa day mën a liggéey liggéey boo xam ne li ñuy wax autosuffisance mu doon slogan boo xam ne àdduna bépp a ngi koy wax dafa war a doon réalité te loolu mën naa nekk fii rek ci diggante bii nu toog tey ndax yare nañ ci jàngale nañ ci jëfe nañ ko misaal bi mooy borom daarul moxti kon jàpp naa ne daara la joo xam ne mën xëj biñ tëral itam fu nekk manees na ko faa yóbbu di ko fa jëfandikoo tàmbalee ci dëkk bi mu ngi fi woon waaye kon nañ koy jëfandikoo foofa mën nañ koy jëfandikoo fii yóbbu ko daaru salaam yóbbu ko saam yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko daaru bayla yóbbu ko taif ko fu nekk nga xamne day wër ba kenn ku soxla ku ne man nga ko jël day mujj Sénégal yëpp benn programme lañu am wala benn système boo xam ne wàllu développement bu durable a ngi ci waaye wàllu xam-xam a ngi ci wàllu jikko al axlaaq bi nga xam ne moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon fi wax ne innama bu'ithtu li utammima al axlaaq te loolu rek la sëriñ bi doon jàngale mu doon daara joo xam ne itam dafa lëkkaloo ak industrie ndax sëriñ bi tudd na ko sànq bokk na ci jàmbaar yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci liggéeyu sëriñ bi ndax ñoo sasoo daaree alxuraan ji ñoom ñëpp ay opérateur économique lañ ñoom dañ leen boole ci conseil d'administration bi bokk na ci li tax ñu boole leen ci mooy mën nañuy orienter sax formation yi nga xam ne moom la ñuy def mën nañoo gis ne kat wàll gi soxla nañ fi ay loxo yu xarañ ñu tàggat ci ay ndaw yoo xam ne buñ génnee ñoom duñ am jafe-jafe yi am fuñ xëyee. waaye nag ñoo xam ne buñ ñu noppee dañu doon seen ay entrepreneur la ñu doon ndax ku ne xam na ne entrepreneur moom daanaka dafa bokk ci sénégalais waaye rawatina Bawol Bawol Bawol yëpp moom loolu dañ ko dañu leen ko mooñaale mooy góorgóorlu ak ja ak njàmbaar bu ko defee nag bu ñu leen tàggatee jox leen ay métier ku ci génn yow métier ba nga doon jàng xare nga ko da ngay daal dem tàmbali koo jëfandikoo fële mu doon njariñ loo xam ne njariñul réew mi lay doon waaye njariñul Afrique lay doon njariñul àddina bi yëpp lay doon jàpp naa ne daal am na bindkat bu mag boo xam ne sax africain la waaye du sénégalais dafa mas a wax ne bu buñ jàngale woon njàngalem cheikhul xadim radiallahu anhu dafa wax ne sax loolu rek moo mën a in euh, Afrique ci jafe-jafe mu nekk yóbbu ko ci développement bi nga xam ne moom la bëgg ndax lépp a ngi ci lépp a ngi ci loolu na kon dafa jot ñu ñu ñu ñu tas ko yaatal ko nit ñi mën cee jot waaye ñu leeral ko bañ mën koo jariñoo waye ñu pratiquer ko bañ mën ko gis nga xamne do doonu doonati lu ñu lay wax ci téré waye da nga ñëw gis ko def na ne mu jamma Cheikh Ahmadul khadim bi nga xamne mom la Cheikh mohammedul Muntaxa di yëkkati misaal la ci ci niñ ko xalaté niñ ko teurelé niñ ko taxawale waye di rationaliser li nga xamne moy li nga xamne moy alal yi nga xamne mom la serigne bi di joxe morit di joxe fé ku fa dugg da nga xamne bo joxe won fukki dërëm wóor na leen ci fukki dërëm mi ngi fi jàddut te itam manam utilisation optimale non lañ ko wax def nañ ko ci manam lu ne dal xon nañ na mu gëna a gëna gën gëna ware ñu def ko nonu ndax ku fa duggu xam li xew ci aduna bi gis nañ ko jëfé da nga xam ne fii moom ñu ko doon def làmbatuwuñ waye la ko la ci ëpp solo nak moy pass pass ba te loolu la sëriñ bi doon jàngale ndax li ki limi def te diko def ngir yàlla diko def ta xamné yàlla moko yàlla mi ko ko joxoon mom la koy dello yàlla mi ngi koy gis te loolu moy tasawuf an taabudallaha ka annaka tarah فإن لم تكن تراه فإنه يراك لولو دلني وح وايلني دندلا تلول لسرين بجمعت مريدي ما نعلي لنا مم بنخان من الدنيا تخلكم مم لول ما تخلني دف مأمسلو نخ أمن لطال نخم نكوك يكتي دكوا جه غير الله لولا لولا لولا بس بس لا تأمن جه خم نسخ لني دف بعو نكوك خم كيسنا فين بالو ما خم نلو بره بره لنجوه أي نعمي تمر مليون تنعو نكوك بنتود سينو تور nga xamne kiñ ko jox na jox mom da am fu leen leen man kuma ma joxub xaalis danaa ko bind dana ko leral seigne muntaha mi nga xam mo moo tax nga jox ko yàlla tax nga joxe ko jaare ko ci Cheikhul Khadim way Cheikh mamadou muntaha moy Cheikhul Khadim ci kaw suuf nga tek ko ci loxom kon mu xam ko sédé ko kon nonu lañ liggéey liggéey bi xamna ne waxtu we xat waye liñ ci wara a mëna wax bari na bi ma ñëwé dama daal di tàmbali rek ndax xamna ne fi kenn du fi wax ñariñul xam xam-xam kenn du fi wax magayu xam xam-xam kenn gu fi wax xam-xam ndax fi moy deku xam xam-xam loolu motax rek ma daldi di bëgg kem katan ma doon teunk bu ko defé di santat di gërem di yassalat sunu nuyu ak sunu ziyaar ki sunu wajur di borom xam-xam mom itam ko xamne non noonu dégg ab téeréem booba mënagunoo xàmmee lu batub arab di tekki muy Serigne basirou Anta Niang téré bu am solo bo xamne yag yàgg nañ ko dégg bobu sax radio Sénégal rek ñoko daan wax bokk na ci ñi daan xemem lo ndaw ñi xam-xam yalla nak fi yalla yagal tamay ko wër naka non nak la koy tambalé ca mboolem rek borom dekk bi di borom daara moxti ak mboolem ak njabotam di ñaan sunu borom yok seen leer ci taas seen taas ci sunu barke taas taas ñu ci seen barke mom Cheikh Mamadou Bachir mi fi ne yalla yagal ko ko mok rakam mok rakam ak i ak borom borom borom daaru di bekk ci mbolo mi nga xamni ne ñoo Al Wafa nga xamni ñun ci lañu bok waye leen wax waaw leen góor ndax li kat moy yefi li moy mbir mi li moy ndanoy dekk bi moy ndanoy yoon wi te da nga ji taxaw taxawaay bu rafet yàlla yàlla gën leen a kàttanal gën leen a. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, Serigne Ahmadul Badawi Mbacké ci turu muassasatul wafaa bi xuquqil iman ñi ngi yëkkati ay kàdduy cant yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem la ko ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom nga àndal te bokk ak ñoom liggéey bu mag bi nga xamante ne moom la Seydou Mouhamadou Mountakha. yëkkati teg ko ci seeni loxo xam naa ne euh, ngir njëkkante waxtu yi rek dañuy jox kàddu gi kenn koo xamante ne euh, ci ñuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi la bokk muy sëriñ Mbàkke Abdourahmane di ki nga xamante ne moom moo jiite walla gi nga xamante ne fa lañ jàpp ci biir daara ji su ko defee ñu jox ko kàddu gi rek moom tamit mu indi ab leeral ci li nga xamante ne moo aju ci li nga xamante ne moo aju ci daara jooju kon ñu jox kaddu gi sëriñ Mbacke Abdourahmane ok sëñ Modou Kara moom kat xam naa am naa sët bu ma léegi sëñ mbaa mbaa dégguma Cheikh Abdou sëñ moom sëñ Mbacke baa ngi ànd ak moo xam naa dana ma tooñ bi may wax léegi dama wax li maanaam xismu bu am solo boobu nga xam ne mooy école école de Touba lañ ko tuddee ñun bu njëkk école moderne lañ ko doon wooyee sëñ Muntaxa Jatara bi nga xam ne moo ko jiite inspecteur sëñ Muntaxa Jatara ak sëñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud mbooloo lañ ñoom itam ñoo yor liggéey bi ànd nañ ak ñoom ci ci ci ci jataay bi kon ñoom itam maa maa ngi leen di yëgal ne ñu ngi ànd ak ñun mboolem ñi nga xam ne ñoo njàng ngànk liggéey bi daal ñëpp waroon na ñëw waaye dañ ne nag bu ñuy ñëwee rek teewal fi ñu ci des waaye fekk fi ñi nga xam ne ñoo ñoom bokk ñoom ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi te nu gàttandu fii ci dëkk bi ci gàttanduñ ci dëkk bi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 lépp lu ci aju sëriñ bi leeral na ko moo tax ma jàpp ne kàddu yi ñu ci dolli xëy na ngir rafetal la waaye lépp mat na te lépp leer na te mbokk yi loolu lañ jublu woon bëggoon sëriñ bi ñëw xamal àdduna liggéey bu rëy bu am solo bii nga xam ne moom la Cheikh mun Muntaqa xafisahullahu taala wa raa di taxawee ci Touba waaye di ci mottali naali kilifaam ya ko jiitu woon ni ko sëriñ bi waxee ci tàmbali bi yoon wi ak sëriñ bi ak jàng mosuñoo tàggoo gis nañ ba tey ba mu nekkee ci géej gi mu bind Cheikh Ibrahim di ko wax ne ko àllim fatan yan faahu taalim di ko digal mu jàngal nit ñi ku ku war a mën a xam nañ ko xamal kon war naka jekk xam-xam da ko ñoroon fu mas a nekk daara la tubaagee la muy rëy moo tax kon mbooleem ku fi mas jaar bu fi sëriñ bi jógee ci kilifa yi amoon nga yéene sa kem kàttani dox nga ngir daara yooyu di wéy daara ji di wéy yàlla dogal nag ak Cheikh Ahmadou Mountakha ci anam gii mu sottee nii mu sotte ci ma waaye kon dafa mottali naa li kilifaam yu baax yee ko jiitu woon ridwanullahi alayhim muy liggéey bu am solo boo xam ne it ni ko sëriñ bi waxee yoonu mu bépp ku bokk waaye liggéey bu jëm ci ñëpp la sëriñ Abdul Ahad la docteur daara jee nga xam ne tey mooy kulliya ba tey ku fa dem mbooleem jinsiyaati Sénégal yi ña ngi fa maanaam ñii làkk yëpp nga fa tarixa yëpp nga fa région yëpp nga fa daanaka muy lu am solo loo xam day jëmmal ne sëriñ bi moom njariñul ñëpp kon lu mu def ñëpp la koy defal ndokk bi ko nit ñi xamee ba wuysee ko noonu ba eh, bañ bañ ko ubbee rek kenn ku ne fas yéene bokk ci ñi fi njëkk ñëw kon liggéey bu magoo waaye day door tàmbul ni ko sëñ bi waxee liggéey ba àggugut yu baree bari ñu ci kanam ci ay maahid ay yeneen yu ñu war a amal waaye li ñu war a tàmbalee muy alxuraan ak xam-xami lislaam yi ak li jëm ci faju wér gi yaram ak nos njàngum dëkk ba ni ñu ko waxee loolu mooy li tàmbali loolu nag Touba ab joxañ la ci waaye day mel ne fépp la war a jëm maanaam lii sëriñ bi doon wax léegi te sëriñ Mountakha Diattara jiite ko muy nos njàngum Touba waxin la waaye nos njàngum Sénégal la ba mu doon njàng moo xam ne nit ñi dañuy bind xam seen kilifa diine yi waaye xam réew mi ak xam-xam yi fi nekk ngir mën a jariñu ci réew mi mën cee jariñ fexe ba daal doot doon njàng ni mu demee nii ñii beru fee di jàng diine ñii beru fee di jàng àdduna waaye am na nosum njàng moo xam lépp da cay nekk ku ca génne da nga xam sa diine ba mat sëkk waaye da nga xam sa àdduna ba mu doy sëkk loolu jàpp naa ne ñëpp ko soxla kon ab système éducatif la boo xam ne fépp la wala law rawatina barab bi ñu nekk nga xam ne ab la ci biir Touba. ñu baree bari ñu ngi ci jariñoo kon yàlla na suñu borom barkeel leen te eh, dëgëral leen ñu ngi jégalu ñëpp nag di baalu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf eh, sëriñ Mbacke Abdourahmane ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne moom nga toftal ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon leeral xam naa ne eh, sëriñ bi bu fekkoon dafa toog rek. yebal kenn ci ñi nga xamante ne ñoom la seqal liggéey bi dana doy sëkk ndax kenn ku nekk ci ñi nga xamante ne ñoom la àndal tey mënoon naa toog fii liñ bëgg xam lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi moom mu leeral ko yéene nag moo tax mu jóg moom ci boppam ànd ak li ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom la seqal liggéey bi ngir bokk nga sànni ay kàddu dañuy jox kàddu gi sëriñ Moustapha Diop Ndar mi nga xamante ne mi ngi bokk ci ñiy saytu lu jëm ci njàngum alxuraan mi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 Cheikh mohammed Bachir ak njabootu borom daaru gépp li sëriñ bi wax ci daare alxuraan ci gàtt na waaye leer na waaye ndigal mooy tax ñu yëkkati ci kàddu di wax ne lu mat juróom-ñetti téeméeri tu tànk tey ñu ngi ci di ay góor di ay jigéen sëriñ bi it féete leen fépp ñu nekk ñoom ñëpp dañoo internet sëriñ bi warlu seen lépp seen dund muy lekk ak naan dëkkuwaay yu mucc ayib ñi leen di jàngal ñi leen di yar ñi leen di toggal ñi leen di fóotal ñi leen di faj lépp nekk ci loxol sëriñ bi euh, sëriñ bi war la ko mel moom euh, sëriñ bi nag da di mujaddid da di mujaddid koo xam ne dafa ñëw di yeesal ndax kenn sikki sàkk wut na Cheikh Mouhamed Mountakha yeesal na pas-pasi murit yi ci anam yu bari amna fum fu leen jële amna fum fu leen yóbbu war wi nga xamné moy waram té moy jàngalé ak yara te ci duggal batay ay tejdit ak yeesal ndax jàngu alquran bi fekk nañ jamono di wax concept bu ñuy wax modernisation des dara sëriñ bi ci bopum andi na ban model moy modernisation ndax yi dekk way yo xamné mucc ayib équipement bu mat seuk Euh, gone yoo xam dañ leen di toggal ay machine di togg ñam yu set wécc euh, di ko def ci kuréel bu bu bu qualifié ñi leen di fuutal di fóot ci ay machine seen lépp dara manqué wut pédagogie bi it noonu mu ñu sàkk ay jàngalekat yoo xam ne dañ leen a nattu ci ay nattuwaay yu wér ci diggante mokkal ak mën bind ak tajwid ñoom ñu qualifié ñoom ne ñoo fa nekk di leen jàngal ñu jox leen programme boo xam ne dañ koo natt ci ay at programme bi dañ cee liggéey ay at muy tawsi kulli yi lil quran karim nga xamni ko tambale baqara banasi bis bu nek xale bi lim wara jël fim wara tambale ak foray fi wara yam lim wara jël ci bis lim wara jël ci ay bis lim wara jël ci wer lim wara jël ci at nga xamne euh ñetti at ak juróom-ñetti ak juróom-ñetti wer ci la wara a wattu alquran ci la wara a wàcc alquran war ko topat ci at ak ñibale tari ndax tawzi' biñu liggey dafa nekk tawseet bu digg doomu boo xam ne xale bi bi ci jàng mën na ci jox dox saa su nekk te lu mu weesu mën na ko bal yóbbale tari defee kon période njàngum alxuraan juróom benn at la ñeenti at yi moom lañ def ngir mu war ci tari alxuraan ñaari des mu continuer di ko tari waaye di ci beqi di bind kaamil en même temps di jàngale téere yoo xam ne dina ko may su ci génnee mën a dugg ci majalis bi euh, ci anam gu yomb kon sëriñ bi indi na yeesal bu baax ci wàllu njàngum alxuraan mi ci réew mi ci wàllu cadre de vie bi waaye ci wàllu wàllu wàllu pédagogie bi ak wàllu social beeg lépp noonu la ko defee ci wàllu majalis bi noonu la ko defee ci wàllu njàngam kawe mi kon loolu lañ ciy dolli di wax ne daal alhamdulilah rabbil alamin liggéey bi tàmbali na ti lépp a ngi dox dara manqué wut te li ci sëriñ bi bëgg incha allahu taala liggéey bi tege na ci yoon sëriñ bi dana am li mu kon ñaan yéen ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yi guddal aw fanam te yokk ko te sëriñ bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmad bi sëriñ bi teg ko ci kanamu liggéey bi sëriñ bi yàlla yokk ko tawfiq saa su nekk ñun ñëpp ñu ànd dox ba sëriñ bi am li mu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf euh, sëriñ Moustapha ci lu am solo lii nga xamante ne moom nga yokk ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi wax. sëriñ Abdourahmane yokk ci yeetu nga yokkaat ci ñuy sant sant leen ñoom ñëpp rek xam naa ne bala ñuy jox kenn ci ñi nga xamante ne ñiy saytu liggéey bi ci lañ bokk muy sëriñ Abdou Lahad Lo mi nga xam ne moo jiitee wàll gi nga xamante ne fa lañuy jàngee maanaam wàllu diine ak wàllu luxa dañuy eh, andi rek yenn ci ay laaj yoo xamante ne mbokk yi sàkk woon nañu sëñ bi defal leen ci ay leeral su ko defee ñu door jox kàddu gi sëñ Abdoulaye Lo sëñ bi kii mu ne dafay laaj ba xam koo xamante ne dangaa bëgg indi sa doom foofu ci daara ji moom ci fan lay jaar ngir loolu mën a sotti. mu ne sëriñ Moussa Diop mu ne nga tontu ci laaj boobu. Euh, wàllu recrutement xale yi sëriñ bi da ci xàlloon aw yoon. koo xam ne moo ko xàllal boppam ndax bi mu jóg dafa waxoon ne daa bëgg wóor wu jëkk bi ña Serigne Touba yoon ca ñoom yar leen ci yenn jikko yi ci pas-pas ak taalibe bi jox leen benn xam-xam bi moo tax mu sàkk woon ci njabootug Serigne Touba gi gi soqi ko ci Serigne Touba buntu kër bu ne am lu fa bàyyeekoo ñëw ci daara ji bokki sëriñ Touba li mbooleem li tàmbalee ci maaram lu mu bokkal maaram buntu kër bu ne am na lu ca bàyyeekoo ñëw ci daara ji cheikh yi nga xam ne ñoom la ñoo àndoon ak moom di wut ngërëmal yàlla ba mu def ci ñoom lam def ci ñoom bunt këru cheikh bu nekk dina am ñaari gone yu fi bàyyi ko ñëw ci daara ji kon kooku mooy benn pàcc bi nga xam ne ñu fële mooy bunt bi ñu jaar ngir ñëw ci daara ji bi des mooy euh, moo doon euh, nu mu tuddati plateforme bi plateforme inscription en ligne la woon moom it bi ñu ko ubbee شاء allah ñu bare bari ci murit yi julit ñi jaar nañ ci ba inscrire kon inscription yi moom maton na boba boba legi ëpp na ñetti wër kon njàngale mi jang mi tàmbali na nga xamne kon manes naa wax na jëmono bi mu toll moom inscription amatul xana ñu dem ba ca kanam ba li fi nek sax ba tege ci yoon jombul serigne bi manam bu joxe wat ndigal ñu ko wat buntu inscription waye jëmono ji mom inscrire ci dara ji mom wess na ndax ñaari buntu yi ma tuddu mom de serigne bi ubbi lu tam ñetti témir ay tout tank diggante góor a jigéen nag ñu nga fa motax jamono bi mom ñu ngi yem ci lolu xana ba ci kanam inshallah taala waaw c'est Moustapha waaw non mu ko waxe rek xam ngeen ne daari alcorane ji ni ma doon waxe ne ñepp dañu ñew ak seen pastef dafa am mbolo mo xamne ab limbu bu lañ dañu ñëwoon wax serigne bi ne ko no saso alcorane ji caabi lañ lay jëbbal ñooñu nag ñoo jot a jëbbale ay bâtiment lépp juróom-ñaari bâtiment la am na ci yu noppi yooyu moom lañ sañc tàmbali ko jànge ya ca des nag ña ngay baral seen loxo bu baax a baax a baax ndax yi njëkk a noppiwaat rek dana mën a demaat ba junneeg ñaar téeméer doone yi tumuranke moo tax ñu wut lim bu yam ñu tàmbali faa nekk bu bâtiment yu noppee nag ñu tàmbaliwaat mbind mi nit ñi ñëwaat ni mu ko waxee plateforme bi dafa ci am lim boo xam ne dañ ñëwoon lii ñëpp ko bokk kep ko xamne rek yitte wo nga man nga ci bindu waye ci dir bu gàtt daanaka xawon na ma juróom-ñaari jooni nit yu ci bindu te liñ ci mënonu jël agagut fofu motax nak luy wey la lo xamne taxawugut inshallah sa bu ay bâtiment noppé rek danañ danañ bindaat mbolo mi mën ñëwaat nga xamne kon nañ xamne ñepp ko bok ku nekk sa wàll ngi ci waye nak day dox ba taala. jërëjëf sëriñ bi kon xam ñu dalal xelu ñi nga xamantene yàlla dogalagul seen doom mën a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lañ jël ñu jàngale foofa incha allah euh, yeneen bâtiment yi bu noppee incha allah xam naa ne du ñàkk ñooña yàlla boole leen ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a jëlaat. Euh, am na meneen mbokk moo xamante ne dafay laaj ne ndax ñi nga xamante ne am nañ lu ëpp fukki at te nekkoon di jàng majalis wala di jàng fi neen ndax ñooñu ñoom mën nañoo ñëw inscrire foofu ci daara ji wala déet. manam bokk mi dafay laaj ne ñi nga xamantene am nañ lu ëpp fukki at te nekkoon ci yeneen daara fajang, lo jàng lu lu mel ne wala majalis ndax ñooñu moom mën nañoo am xéewalu mën a bokk ci ñi nga xamantene ne ñoom lañu jël foofu ci daara ji waaw xam nga lu aju ci majalis bi li tàmbalee gon mooy ñetti at yu njëkk yi xam nga lépp daara ji marxala mutawassita ak marxala aliya marhala bu ci nek ñetti at la ñetti at yu njëkk yi nak bu ci nek amagun na lim ci ay dong yu fa nek maanaam ko xamne da mokal alquran wala sori na ci lool te jàngagul dara ci xam-xam wala mu tamlu jang aslëf xawa sori ñoñu lañ fay jëlagul xëy na fiñ tolloogun ni euh, la fa nek matna ñetti téméri gonay ño xamne ni daara ji bindogun motax tax bi agul ni ko sëriñ bi waxee ñu ëpp ci ñoom dañuy jàng di ñibbi dañuy xëy jàng si bu ñu wàccee dellu seeni kër euh, classe yi njëkk yi nag moom mel na ne fi mu ne nii yi jot am dafa fees waaye li ñuy tuddee ñetteelu at mi moom ba tey des na ay bunt gone gu ñëw ñu natt la nga weesu ñaari at yu njëkk yi ba tolloo ci ñetteelu at mi mën nga am mën nga am barab ku weesu foofu nag xëy na bu liggéey yu noppee ni ko sëriñ bi waxee ba yeneen i ubbi su boobaa dañ mën a gën a yaatal. ay fi mu ne nii ñetteelu at bi moom mooy fi nga xam ne ba tey ji mën naa jëlagoon ay dong yoo xam ne jàng nañ ba xaw a sori nga xam daal boo ko doon natt fii nii dana jege bu brevet ku toll foofu daal boo dikkee moom mën naa mën naa am barab bu mu dugg bu ko defee nga xam ne day jàng di wàcc di ñibbi foofu daal la ñu tollagoon waaw euh, am na meneen mbokk suñu moo xamante ne dafay laaj ba xam ndax euh, daara ji ni nga xamante ne ku fa dugg dangay mën a jàng alxuraan jàng xam-xam jàng yeneen wàllu ci xam-xam ci wàllu diine tamit ndax danga am possibilité tamit mën faa jàngale france wala déet mbokk mi loolu laaj ba ok daara dañuy jàngale ak métier diine ak métier yooyu nag jumtukaay bu ñu mën a jëfandikoo ngir jàngal ko ndaw li dañ ko ko jàngal waaye diine la jàngale ak métier. baax na jërëjëf sëriñ bi xam naa ne bala may ñëw ci yeneen laaj yi damay jox euh, docteur Abdou Lahad mi nga xamante ne moom kenn la ci ñi nga xamante ne sëriñ bi am na pàcc bu mu leen dénk ci liggéey bi ñu koy saytu su ko defee moom tamit moo indi ay kàddu yu jëm ci walla ga nga xamante ne moom lañ ko dénk mu koy saytu.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 ndigale jóg rek lu war a yëkkati kàddu waaye liñ ci waroon wax kàddu yi jiitu yëpp jaar na ci xam naa bu ñu amee kon fu ñu bëgg a jëmale suñuy wax rek mooy dalal xel yi ñu xam ne ab tàmbali daa yombul daal waaye ñun ña fa nekk ci daara ja am nañ firnde ju wér ci ne suñ borom gàttandoon nañu taw tawféexam bu baax a baax ba mel na ne li nga xam ne moo nekkoon mébétu kilifa yi ko samp leen lu ci nekk noonu ña ngi cay tàmbalee gis ay firnde daara ji moom sëriñ sëriñ Touba daaraam la mébétam la woon bokk na ci la alhaji Mbàkke bu soo waxoon ne madrasatun takunu rihlatu sénégal ilayha fi l ulumi al arabiyati shar'iyatiha wa alatiha loolu moom keroog bañ ubbee rek la leer ne mébétu sëriñ boobu moom sotti na ndax du école Touba du école Mouridi école Sénégal ci la tàmbalee te loolu ku dem ci daara ja dugg ca biir classe gis lañ fay jàngale dina la leer na lii loolu moom mébét la boo xam ne sotti na ba noppi. noonu ña fay liggéey it lépp lu ñu war a am ci ay conditions noo ngi sant yàlla ab ak njalbeen du yomb waaye noo ngi sant yàlla bu baax amaguñ benn gàllankoor pour nu tey mën a liggéey. Eh, ndongo ya fay jàng it ku ne xam na ne condition yi ñu leen teg condition yu baax la danga leen di jàngal ba mu yàgg nga xaw leen a nga xaw leen a ñee sax yow ndax da ngay fàttaliku sa démb da ngay fàttaliku sa démb yow bi nga tollee fi ñu toll lii nga xam ne dañ leen ko jegeel indi ko ba seen wet ñu di leen ko jox ci anam gu set nun bañ cee tool ni mu jafe woon ci noonu da ngay mujj sax ñee gone yi ñu leen di ñaanal suñu borom yokk seen tawfiq waaye ñoom seen xol set na ndax ñi ngay jàng njàng bu baax te li gënoon a am solo di leen xaw a andil ay jafe-jafe mooy ndax dinañ am ay bourse wala déet sëñ Ahmad Badawi tudd na ko sànq démb rek wala ñaari fan yëpp ñu ngi leen di fay seeni bourse kon gone yi amatuñ jafe-jafe ñu fay jàngale amuñ jafe-jafe sëriñ biit la nekkoon mébétam mel na ne euh, euh, sotti na kon ak njalbeen yombut waaye alhamdulilah njalbeen gi li muy jafe-jafe euh, laaj yu bare bare yoo xam ne mu ngi ci xel yi nun ñi ngi ciy tàmbali am ay tontu yu leer a leer foog naa ne loolu ñu mujj wax ci poursuite gone yi rek dina tontu ay yitte yu baree bari yoo xam ne gone yi dañ ko doon am ci di xaw a euh, déng-déng wala ñuy xel ñaar ndax dañuy bindu fi wala dañuy bindu fale loolu leer nañ lañ fay jàngale it kum leer ku ci dañ kumpa yaakaar naa da nga ko ñeme lool ba ñoo ngi jàpp ne déwén bu ñu ubbiwaatee dinañ am lim bu nu jaaxal waaye nag lépp ci tawféexi sëñ bi jàpp nañ ne lu mën a ñëw ci ab lim lu ko gàttandu ci euh, waajtaay ak ci taxawaay ma nga fa kon daal xam naa waxtu dafa gàtt moo tax ñu ne nañ ci sànni kàddu yooyu rek di ci jégg lu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, docteur Abdoul Ahad Lo xam naa ne bala ñu lay bala ñu jël kàddu gi rek am na mbokk moo xamante ne mi ngi doon laaj ba xam ndax koo xamante ne da ngaa bëgg a def tasdiir ci kuliya bi euh, ren ndax tëj nañu ak buñ tëjee koo xamante ne dangaa bëgg a bindu wan waxtu ngay ñu mën a bindu ak ci naka ngay bindoo. waaw mbindu bi de niñ ko waxee rek dafa amoon ab app dañ koo àppaloon ba tëj nañ ko ba tàmbale nañ jàng jàng nañ luy jege ñaari weer fi mu moo tax ñu ne woon nan ñu may nag ñu eh, jéem a jëmmal nag li nga xam ne moom la ñu doon bu yàgg ba tey ko defee buñ jàngee at incha allah taala euh, comme ni muy amee ci mboolem université rek dana ubbiwaat buntu bindu waaye ren jii moom mbind mi mel na ne féete na boor jàng daal ca lañ toll fu ñu toll. jërëjëf euh, sëriñ Abdou Lahad Lo kon xam naa ne ñu mbokk yi ñu bàyyi xel rek ne mel na ne bu dee ci daara alxuraan ji ñoom li ñu war a jël ren jël nañ ko bu dee ci majalis bi tamit naka noonu la bu dee ci kulier bi tamit noonu la. waaye nag incha allah ñu xam ne bunt yi tëjugut maanaam ren li ñu war a jël moom lañ jël waaye bu dewee ne incha allah du ñàkk yeneen bunt yu tijjeeku yoo xamante ne ñeneen ñi danañ ci mën a jaare ngir seen mébét yooyu mën a sotti yàlla ko yàlla sottal. Euh, meneen mbokk mi dafay laaj mu ne moom dafay laaj ba xam koo xamante ne da ngaa bëggoon a jàngale maanaam waxul jàng waaye jàngale foofu ci daara ji ci naka ngay def. pour ñu jël la nga mëna bok ci ñi jàngalé manam yeen critère mo wara dajé ci yow ngir ñu mën mën la nga mëna jàngalé fofu foofu sank nak nag nañ ko ci wax ji wax né daara ji mom buñ ko mënon wax ci waxinu jamono dañ nan euh, daara excellence la université d'excellence lolu nak moy critère yëpp dañ koy tan université lañuy wax ngir barkeeluk Cheikh Abdoulaye Lahat mi nga xam mo waxone damay Serigne Touba ab université motax ñuy wax mu jamaa nga xam ne dafa boole wala complexe Cheikh Ahmadul Xadim nga xam ne dafa tënk yu baree baree bari lu ci nekk nag ak nañ fay duggee waaye lu ca nekk nag moom duggin wu tegu ci yoon lañ koy lañ ci jaar wax naa sànq ne norme standard yi dañ koy weesu ñun jëm ca kaw wax naa ne système LMD bi ñuy jëfandikoo nga xam ne ay crédit la ak ay mën nañoo bu dee temps bi nga jàng ay semestre lay doon waaye crédit yi moo ci ëpp solo saa boo ko validé jàllaat ci beneen waaye jàngukaay yi nekk ci Afrique ak ANAQ ANAQ bi nga xam ne moo tënk mboolem jàng mu kawe mi ci Sénégal dañoo am ay normes yu teer yi nga xam ne dañ koy natt ba tax na anam gu ci fu ci nekk daal nañ fa duggee bokkut ak nañu duggee fa ca des bu dee ci daari alxuraan ji moom defe naa ne sëñ Moustapha ñoom liñ defoon mënuma ko tudde sax concours waaye lu jafe la ndax bala ñoo jël nit ki day day day dañ koy déglu mu tari alxuraan ñu déglu ko bu baax a baax te ay boroomi xam-xam ñu màcc ci loolu ñoo koy déglu mu bind ñu gis. waaye bu noppee itam su gëstu foo xam ne du ko xam du ko moom ci boppam du yëg loolu naka noonu it ku ñu ñël ngir jàng ngay jàngale feneen ci mboolem xaaj ba ñu ci doon noonu la tànn nag bu kii kii la doon ndax la gën la defal sëriñ bi sëriñ bi walla gën la am moo tax ku koy defal la gën nga koy defal waaye nag ñëpp ci bokk nag bu kenn ragal ne ñëpp ñëw waaye koo xam ne charte yi daje na ci yow incha allahu taala danañ dafa jël buñ tolloo ci war a war a jëlaat moom daal bu kenn ne mënuma caa am ñëpp ñëw waaye ku ñëw nag na nga waaj xam ne nag fii moom la gën a baax lañ fiy dajale. jërëjëf euh, sëriñ bi ci leeral yooyu xam naa ne meneen mbokk ngi moo xamante ne dafay laaj ne moom diir bi nga xamante ne moom la fa xale bi jàng tàmbulee ko ci njàngum alxuraan mi ba keroog muy am licence mu ne diire boobu ñaata at lay doon ma ne sëñ Mbàkke ok xam nga njàngum alxuraan bi dañoo wax ne dañ ko tël tënk ci juróomi at juróomi at yi gone yi bu amee ñetti at ci lay wàcc wàccu mokkal sëñ Moustapha wax na ko léegi tegaat ci ñaari at yoo xam ne day beqi bind kaamil waaye diggante boobu muy beqi ak bind kaamil ci lay yóbbaale xam-xami diine yi mënta ñàkk muy téere sëriñ bi ak téere yi ñu daan jëkk a jàng te da koy mokkal ni mu doon mokkale alxuraan kon mën ngaa jàpp loolu muy juróomi at majalis bi sëñ Mbàkke Abdourahmane wax na ko léegi ñetti marahil la marhala bu ci ne ñetti at muy juróom-ñeenti at boo ko boolee ak juróom yam amee woon fële kon day daal di doon fukki at ak ñeent mu àgg ci niveau licence waaye licence boo xam ne nag diraasa mu amaqa lañ koy tudde ci yeneen réew yi maanaam day xam diine ci xam nga gën a dëgër bu ko defee nag boole koog yeneen yi nga xam ne daawuñu ko jàng ci majaalis dañ ko fay jàng am na ku fi tudd léegi ay loxaat loxaat yi nga xam ne nit ki da ko soxla dañ ko fay jàng ci majaalis bi informatique dañ ko fay jàng lu demee na ay yeneen yi nga xam ne daal nit ki dana ko soxla muy jumtukaay yoo xam ne bu noppee moom li ñuy wax de opération nag borom mu man-man lay doon boo xam ne dana mën a def lu am solo te loolu mu jàngi da koy daal di mën a jëfe waaye teewut am na lu ñu tudde passerelle nga xam ne bu demoon ba ca marxala ñaareelu marxala ba ñetteel ba wala wala ñaareel ba bu njëkk bi ñaareel bi mën na ne man dama bëgg a jàngi métier bu boobaa am na lu ñu tuddee passerelle mooy dañ koy waajal maa loxaat yooyu ma doon wax foofu lay dugg ñu xool bu fekkee ne moom dafa amutoon niveau bu kawe ci mathématique ñu war ko cee waajal bu fekkee làkk ba ñuy jàngee métier moom soxla da caa néew doole ñu tàggat ko ca nga xam ne moom day mën a jóge fii rek daal di romb foofa nag mën na faa def at mën na faa def ñaari at dem jàngiwaat beneen métier bu ko neexee mën naa wéel ba am niveau licence ci wàllu njàngum diine waaye diggante bi nag mën na fee bët jaar ci passerelle boobu dem jàngiwaat meneen métier mu bëgg a jàng moo xam agronomie la moo xam informatique la moo xam science infirmière la moo xam itam beneen beneen beneen beneen kii la waaw kii itam ma jox sëñ Abdou dafay laaj wàllu tamwil mooy financement bi كنا خمنا نك داري خم خم مم أي برامي خم خم فني تواخنا سانكني آه آه واو تواخنا سانكني كوميشن يمد نين فوكي كوميشن أجرم واي أمنا تي كوميشن دو فينانس بو خم نيو ميتم خلات نين تي أي يون يو خم نين إن شاء الله مجمع بيجي بحم دنا منا أمنك أي رسوس في عمل بحم waye teewut xam nañ ne lepp mourid yi ñokay defal seen bop waye gëna bara bu xam xam la di tagat ay borom yi xam xam ño xam ne dañ am koom di dundal économie di dundal lislaam te lépp ànd di doon benn di dundal xam-xam foofa wàll googu itam am nañ ci xalaat yoo xam ne incha allah dana mën a am lu amal boppam waaw tamwil islami itam doon na ko xam muy finance islamique nga xam ne dafa xew ci jamono ji te loolu mooy fiqhul muamalat rek daanaka nun ba ñuy jàng booba tur wi nga daan dégg and then